jërë ngeen jëf mbokk yi suivre seen site internet info 7 ñu ngi leen di ziar di leen ndokkeel euh, mbokk yi journal du grand théâtre lañ wax tey jii ñu ngi fii ci marché Ocass kan lañu seet si Cheikh Sow Neex Soow ki nga xamante ne defe naa grand théâtre yabu ko ndax dugg na fa duggaat fa euh, ñëw na fi nga xamante ne moo di guddik euh, Serigne Saliou ñëw na fa ay maintes maintes fois tey jii nag seet si woon nañ ko fii ci place am Cheikh ñu ngi lay nuyu waaw di ji événement maa lay fay di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan yëpp si site bi mm-hmm. euh, di wax gars yi nag avant tout nañ abonné site bi mm-hmm. euh, ñu gën a abonné bu baax a baax euh, sama gars yi sama xarit yi sama am di jàmm yëpp maa ngi lay wax na nañu abonné site bi voilà di nag dañoo am événement mm-hmm. événement bu toll ne Màggalu Touba mooy ban mooy le 7 janvier ku ne xam na ko mooy bésub Serigne Saliou ñu ànd si ak kan ak ndaana lu mag li di kan Mouhamed Niang Mouhamed Niang nag ko wax xelam dem si sëñ Saliou Mouhamed Niang koo tudd xelam dem si Cheikh Béthio dañ naan Mouhamed Niang mu Serigne Saliou ne Mouhamed Niang mu Cheikh Béthio kon ñu ngi woo waa marché Ocass gi yëpp ñu ngi woo waa Touba gi yëpp ñu ngi woo waa Bawol gi yëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xamante ni yaa ngi seetaan image bi wala yaa ngi koy déglu sa nopp woo nañ nga si le sept fële sa ndakaaru Ndiaye fan si Dakar Grand Théâtre Mouhamed Niang nag ku ne xam na ne grand théâtre bokk na si ñi ku njëkk a feesal mm. ku ne xam na ne nag feesal grand théâtre yombul mm-hmm. mais Mouhamed Niang bokk na si ñi njëkk a feesal grand théâtre mm. ci lan la ko feesalee ci sant Serigne Saliou Saliou kon nag képp koo xamante ni taalibi Serigne Saliou nga wala sax yaa ngi ne ashhadu an laa ilaaha illallaah war na si bés boobu muy le sept mm-hmm. fële sa Ndakaaru si bésu Serigne Saliou boobu muy le sept janvier mm-hmm. Cheikh yow Mouhamed sa la defe naa ne euh, grand yéeg nga fa yàgg euh, euh, Sada Niang ba mm-hmm. tàyyi euh, ñu bëggoon xam yow sa bopp naka nga koy waajee yow. waaw délégation bu rëy délégation bu mag na ko daan defee dañ koy yokk mm-hmm. parce que ko ne xam na ne yoonu murit amul tànki amul tànki gannaaw tànki kanam la am mm-hmm. kon nag chaque jour day gën di si kanam la set incha allah dañ fi def délégation bu mag a mag a mag a mag mobilisation bu mag a mag a mag a mag jëm foofu si Ndakaaru bu soobee yàlla bàyyiwuñ kenn nag dinañ di góor jigéen mag ndaw en tout cas ñu ngi woo ñëpp te incha allah dañ ko pare nañ ko daan pare dañ fi xëyee fii ci euh, Touba incha allah euh, fanaani ji Ndakaaru bu soobee yàlla mm-hmm. fas yéene sant seen sall bu bët set mm-hmm. incha allah ñu ngi koy programme programme bu rëy rëy nañ ko daan defee te ren moom yaakaar naa dina gën a ala daw mi parce que dinañ gën a yokk affaire yi te aussi mbooloo mi tamit incha allah ren lañ gën a yokk bu soobee mm-hmm. yàlla Cheikh ñu waa Dakar nee ñoom ñooy feesal Grand Théâtre su ma ñuy bawal fii Touba nga xamante ne moo di feef Mouhamed ñoom tamit nee nañ ñoom ñooy feesal grand théâtre ak waa marché kon grand théâtre dina fees bay bay remet ndax xam naa ne fii li fiy jóge rek incha allahu lu takku lay doon mhm. kon nag mbooloo mi fi jógee bu ñu dajee mbooloom Touba ak mbooloom Ndakaaru mhm. fu ñu daj yaakaar naa foofa dina dina dina mm-hmm. allah képp ku ma dégg tamit yaakaar naa ne pare nga naan incha allah nañ programme le set ñu ñëpp ñu daje jëfale si grand théâtre bëgguñu nag waa Dakar yóbbul ñu ko mm-hmm. dañoo bëgg waa Bawol ñun ñi ñu ñu ñu xam ne ñëw nañ mm-hmm. bu ñu ñëwee rek waa Dakar na nga xam ne ñu waa Bawol agsi nañ incha allah merci beaucoup Cheikh jërëjëf maa ngi di sant di ñaan yàlla ñu àgg si bés ak jàmm merci beaucoup mm. jërëjëf moo nekkoon Cheikh Sow jërëjëf euh, euh, DJ événement moo nekkoon ci micro bi Alaaji Fallou Diakho ci caméra journal du Grand